ci Fatou Kiné Deme xibaar yi bi ci réew yi. la ñu ci li xew ci àddina wërngal këpp Fatou Kiné ci wolof euh, tey fan lañuy tàmbalee. Euh, tey dañuy tàmbale rek euh, ca Alger ndax euh, njiitu réew bu Mauritanie mm. di Mohamed Ould Ghazouani nag mi ngi fay amal daal ak nemmeeku démb nag la fa dem moom njiitu réew bu Mauritanie boobee nag ñu ne sax guléet nag ak njiitu réew bu Mauritanie di fa dem daanaka fukki at a ngi nii kenn nemmeeku ko waaye moom it ba ñu ko falee ba tey ca Mauritanie ma nga fay doog teg tànk ca Alger solo si nag mooy fexe rek daal ba indiwaat ak déggoo ci diggante diggante ñaari réew yi muy Mauritanie ak Algérie ndax ku ne xam ne ni euh, seenu euh, jëflante nag daanaka euh, xawoon naa tagga témbe mu mel ni la ñuy waxtaane bokk na ci wàllu kaarange gi ci Sahel waaye tamit wàllu kaarange gi ci frontières yi nga xamante ni moom moo dox ci diggante seen ñaari réew ci Bamako nag amal nañu fa démb baaboog sax door nañu fa waxtaan wu yaatu woowu nag jëm rek ci xoolaat daal nu ñuy defaraatee kon wàllug politique ndax coow bari na ak nguurug soldat soosu nga xamante ne fi mu ne ñoo ëpp doole euh, ca euh, ku ca politique ba foofee ca euh, Mali loolu nag di ay assises nationales yoo xamante ne ni nee nañ liñ ciy jublu mooy fexe itam xëy na ba civil yi mën a delsiwaat ca nguur ga diirug ñeenti fat nag ci la ñu koy amal lépp luy lënt lënt daal daanu xool ba daal fexe ba nu ñu ci indi saafara muy kàddu yoo xamante ne mi ngi tukkee ci colonel Assimi Goïta wàllu pédophilie la ñuy wax muy ñi nga xamante xale yi ndaw yu góor yi euh, fële moom euh, ca Gabon ma nga fay lëmbe rawatina ak ci wàllu football ba lu ñu fa nemmeeku la ndax sax police dafa ubbi ab enquête loolee nag euh, gannaaw rek benn gëstu boo xamante ne nii journal boobu ñu duppee le Guardian def na ko enquête ba nag ñu ko ubbi fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre ba ñu ca noppee nag lañu gis ni ab scandale bu rëy la nag ci wàllug pédophilie bi ci mujj rek mooy ci njeexitalu ay bis bi yemook Noël bi kañu jàpp nag benn entraîneur la woon ña ko fekk ca benn hôtel moom ak ñaari mineur euh, ca Brésil lañu koy euh, jeexalee mu mel ni kon limuk ñi faatu daal fi mu ne nii euh, waxaguñ ni noppi na gannaaw taw yu metti yi nga xamante ne nii moom moo daanu ca dëkk ba ñu naan Bahia alxames ba tey nag ñu ngi ci taw yu méttee métti fi mu ne bilan bi nii la tëddee ñaar fukki doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci li ñu jàpp gum lu ëpp fukki junni ak ñaar ci doomu aadama gàddaayoo nañu seen i kër wuutali feneen ndax mënuñu faa dëkk ndox ma nangu na seeni kër gouvernement fédéral ba ak yeneen i nguur tey nag ñoo lëkkaloo di amal ay opération Soxna Faté ci Brésil xool rek nu ñuy xettalee askan wa ni ñu ko waxee. ndax taw ya métti na te bari na ñoo xamante ne tey ña nga ca loru bu baax a baax. muy lu métti métti Fatou ñu lay sant bu baax di la gërëm di la dig daje ëllëg incha allah. incha allah à de 6h30. Ah, non ëllëg moom euh, kii ñëw ah, sama naataango bi mooy ñëw. Ibou Diouf kon semaine prochaine incha allah. <laughs> aywa Fatou Kiné Deme la ñu àndaloon ci xibaaru waaw. <laughs> xoolal xam nga démb démb da ñëwoon nañ xool xam ndax amul ay article yoo xam dina mën a contrôler làmmiñam mais loxo bi ah, tamit xam naa dañ ko ciy boole waaw ah, loolu Chérif daxal xaat ki ne bigam delloo ko delloo ko bigam wala rek ñu indi ñu indi article bi danga kaa war a delloo te ah, day faat noonu ñaar laa yoon ma jox ko benn mais su bi defaru ci benn nag yow tam <laughs> nag des fois te li ma ci metti rek moom du moom ak kenn ki plateau bi fàttalikuwu leen yéen ñi kenn ku dem ci boutique ba jënd bi kenn ku ne ci yéen sàllaaw bi bi bi bi da koo àbb ba faf ko moom lu leer la jërëjëf Fatkine <laughs> bonne journée aywa euh, ëllëg incha allah Ibou Diouf lañ fas yéene àndal mi ëllëg à partir de 19h30 vous retrouverez ki ne dem suñu bàjjenu gox ci xibaaru marax yi météo la ñuy àddu mi semble la ñuy dalal